moom tëdd list jàmb ak njariñ daal nay àddu jëme ci ëllëgu situation réew mi ci li nga xam ni moo di élection bu daal di jàllee moom Amadou Ba daal ci indi ay xalaatam waaye ci loolee daal dina xamle kii li di Amadou Faye di gorom Macky Sall daal na koy porter plainte ca loolee daal dina xamle Iba Faye di mag ci Adama Faye daal dinay sàkku bu baax a baax ginnaaw ak téléphone bi nga xam ne ñoom ñaar waxtaan nañ ci lu yàgg loolee sax daal day xamle moom Amadou Ba jot na kii di yaay Marème Faye Sall ci lool waxtaan nañ lu yàgg mu nekk ay actes yi nga xam ni saa su ne moom dafa daal di jàpp ni politique ku nekk doon ko def waaye en warul am benn yoon ci langue politique bi ci loole dañuy taxaw déglu kàddu yi nga xam ne moom Amadou Ba moom la daal di ñëwaat. te man noonu laa gisee politique je vois des divergences politiques mais pas de l'animosité amul benn animosité bu ma am ax euh, ku mu mënti nekk euh, non en fait yàlla dimbali na ma ba. sentiment boobu sa diggante ak Macky Sall moom jaaxal na Sénégal yu bëri. ah man daal parce que nañu bëgg nañu xam c'est quoi la vérité. lan la man daal li ma la mën a wax hmm. mooy. amul dara lu ñaaw loo xam ne def naa ko te yëg ko nit nag mën na juum te xëy na yëgoo ko kooku moom mën naa nekk mais gëm woon dinaa juum juum bu day noonu te xaw ma lan la donc dëgg dëgg loolu moom moo ci. Euh, élection yi li ma ci mën a wax daal mooy à un moment donné effectivement report élection amoon na ma ma ma wax ci sama xalaat. non d' accord ci woon parce que man la dama ci d' accordul woon. parce que évaluation bi ma defoon ci situation réew mi moom may loo ma d'accord ci tout comme fii ñii li ma leen di wax mooy ni réew mi di bindoo bindoo tey jii dama bëgg ngeen dégg loolu bu baax a baax ni réew mi bindoo tey jii bu ñu génnee ci élection bi amuñu beneen taxawaay quel que soit l'issue des élections dañuy am ay jafe-jafe man loolu loolu rek laa wax. beneen taxawaay mooy lan ñu woote jàmm woote réconciliation waxtaan wala. buñ ko defulee. Mhm. ko defulee laa wax bu ñoom bu ñu doxalulee jàmm. réew mi dina may jafe-jafe parce que mënoo ne réew mi dafa am ay jafe-jafe ñoom ñoo ko wax ne déficit bi egg na foo xam ni déficit musu faa yegg muy situation d'urgence extrême donc il faut ñu saafara ko kooku dootatul plan de développement dootatul li ñuy def déwén wala après déwén lu ñuy def ren la léegi lañu war a commencer liggéey ci loolu liggéey boobu dina jël benn at ñaari at ñetti at lu mu néew néew néew mandat bi pour ñu régler loolu dina jafe si sauf bu nekkee euh, si mu am retournement extraordinaire bu environnement international xëy lépp neex lépp yomb <laughs> bon. donc rien que redressement bi rek mën na jël un mandat. ñoom ñu ngi ko prévoir en deux ans ci Sénégal 2050 bi. oui mais deux ans oui. c'est-à-dire que ça signifie quoi. ça signifie il faut des mesures de redressement yoo xamante ni di nga ko yëg sa morom dina ko yëg ku la ëpp doole dina ko yëg ku la a néew doole dina ko yëg dina metti ci ñëpp. parce que ce que ça signifie concrètement waxuma la état d'esprit waxuma la vue d'esprit xam nga euh, euh, bokk ni ma yàlla li ma yàlla dimbalee man bu ma bu ñu ma joxee réalité finance publique nga ne ma defal nangam dama lay jéem a damay jéem a xool nangam boobu lan lay jural ki ëpp doole ci ñun ak lan lay jural ki gën a néew doole ci ñun ma def analyse bi gis nga analyse boobu boo ko defee xool ko bu baax a baax a baax a baax. ça va être difficile à supporter. Par en tout cas la grande majorité des populations. Maintenant pour population mën a muñ socle bi c'est l'unité jàmm la xaw ma ndax yaa ngi dégg bu baax li ma la socle bi jàmm la amul beneen pexe c'est-à-dire que c'est la même chose lii ma la wax nii waxoon naa ko Macky Sall en 2021 hein ci j'étais je sortais du gouvernement et ñuy def réunion politique ma leen attention situation réew mi ni mu bindoo nii xawma lan mooy am mais fii ak ñetti weer ñeenti weer on risque d'avoir les pires émeutes du Sénégal en public xam naa ni les gens disaient oui Amadou Ba xam naa dañ ko daq ci gouvernement bi rek xolam tànk mais ça c'est l'analyse c'est que analyse boobu ñu defoon moom nañu defaat tey cette situation réew mi c'est une situation compliquée maintenant foog ñu xool nan lañ koy saafara parce que aussi kenn amul intérêt mu yàqu kenn amul intérêt en tout cas man bokk naa ci je ne vraiment pas réew mi am yenn jafe-jafe kenn du ci mucc kenn du du ku yor pouvoir ak ku ñàkk pouvoir ak ku nekk ci opposition ça va être très compliqué mais loolu li koy saafara c'est d'apaiser je ne dis pas impunité non waxuma loolu c'est d'apaiser et de d'aller vers des solutions consensuelles. lu tuddee apaiser gouvernement d'union nationale. non kooku c'est laissé à l'appréciation du. du président de la République moom mooy évaluer situation bi ak résultat élection yi li muy joxe mais je veux dire quels que soient les résultats le pays a besoin d'une pause ci waxtaan bi jublu ci liggéey quels que soient les résultats hypothèse extrême bu Pastef amoon 165 députés sur 165 il faut la paix bu ñu amoon zéro député ñeneen ñi am 165 il faut la paix ci gàttal bi opposition bi wax ay euh, cohabitation est-ce que loolu kon dina dina mën a méngoog li mën na saafara sauf si si position et dans une position de de de de de de responsabilité mooy ñun li ñuy woote mooy xool situation bi ni mu bindoo xam lii mooy dëgg wax nit ñi dëgg woo ñëpp ñu toog nga leen situation bi nii la lii lii lañ ci war a def la lii lañ ci war a def baykat yi kat nañu def nangam bi Euh, étudiants yi nañ def nangam bi euh, voilà secteur segment yu nekk ci réew mi yëpp ku nekk nga tudd ko wax lañ ci war a def pour réew mi mën a teguwaat ci yoon ça il faut il faut il faut des accords c'est même pas des accords politiques même avec les syndicats foog nga wax ak ñoom wax ak les acteurs de la pêche les acteurs euh, les étudiants les les, les universitaires attends bourse étudiants yi li nekk ci budget bi doyul pour fay leen man j'avais laissé 80 milliards de bourses ou 70 milliards à peu près laa bàyyi woon bourse nationale et 8 milliards bourse étrangère tey dégg naa ni ñu ngi 90 milliards mais dama ubbi budget bi pour fin d'année bi il faut que nga dem uti ay mécanismes soit nga anticiper ci année bi ci topp wala nga dem lépp pour mën a fay étudiants yi est-ce que xel xalaat nañu bañ leen fay ça c'est une gestion pratique mais cas yooyu bari na ci budget bi laa wax maintenant ajustement mooy lan. nga fexe ba li ngay nattal ñëpp tolloog la ñu soxla la ñu soxla kon fa nga wàññi ko la nga leen di nattal dëppoog la nga yor je pense que du lu yomb je pense je si vous yéen a ngi jéem a xalaat li may wax am na loo xam ne neex na wax dinaa ko def dans deux ans dinaa ko def dans trois ans jeu lay doon. ah très compliqué waaw léegi ginnaaw say relation ak président Macky Sall yi Georges évoqué tout bëgg naa tamit ñu waxtaan say relation ak les actuels tenants du pouvoir. Euh, président Diomaye Faye ak euh, Ousmane Sonko ñoom dañoo génn prison le lendemain ñu ni la cible n'est plus Macky c'est Ousmane Sonko ne jamais l'occasion de tirer sur pour d'anciens proches collaborateurs mais c'est quoi le problème entre ñoom ak yow il a rien mhm. à ma connaissance à euh, politiquement toll nañ ci campagne électorale génn nañu prison il paraît qu'il y avait un protocole ou y a pas de protocole man xawma c'est encore vous dire la position du premier ministre bon tout ce ce truc là ñu ngi doon waxtaan waxtaan nañu dugg nañu prison génn nañu le premier ministre n'est pas xaw xawma ci woon dara biñ koy jàpp bi ñu koy bàyyi yëguma. yu ko ni amoon na ay waxtaan sax. si suuf entre li ciy forme c'est pas crédible mhm. en tant que premier ministre da ngay dégg rek ne la way gisee nañu di wax na lii c'est un petit pays hein. Euh, da ngay dégg ñoo xam démb gis nit nañu diw wax nañu diw mais li nekk ci biir vraiment xaw ko moo tax ma maandu ci boobu ba tey euh, waxuma ci <laughs> dara dara dara et vous et vous ça la place du premier ministre maintenant euh, moi on m'a accusé même maa moomoon Pastef dégg nga ko. absolument yow mii dégg yaa ko créé yow yaa yaa leen financé. maa leen doon financé. Mm-hmm. tey ñoom ñoo nekk au pouvoir da ngeen dégg ñu wax ci mosul am moi je suis loyal en toutes circonstances. musul am maintenant xam naa leen attention bu baax a baax a baax yéenewu ma leen benn musiba. dina xam en bien ou en mal. musuma ci dox non xam naa leen bu baax. on était ensemble dans la même administration euh, ils avaient un syndicat donc j'étais en contact quasi permanent ak ñoom non y' a y' a y' a aucune animosité suma diggante que ñoom et chaque fois que les dossiers ont été soulevés même ma nekkee ci gouvernement j'ai donné un point de vue le plus objectif possible tout le monde sait que bi ñuy bëgg a révoquer j'avais dit que c'était pas une bonne option ça c'était devant des témoins ah yeneen ak yeneen ak yeneen euh, bi ñu ko jàppee yëguma bi ñu koy bàyyi yëguma ça n'enlève en rien au fait que j'étais dans le gouvernement et solidaire des actions du gouvernement je je parle à un niveau doublement personnel et en tant que membre du du gouvernement donc il y a pas de problème à ce niveau-là et maintenant la réalité montre que aw moon ak ñoom relation de cachotterie mooy li yenn homme politique yi di def euh, on est on est en guerre le matin le soir ma dem seet la ci guddi jox la xaalis jox la lii musul dox. kañ la gëj a dégganteeg par exemple Ousmane Sonko. peut-être 2017 oui 2017 c'était daje nañu assemblée une fois ou deux fois euh, sinon il est venu à la maison à l'occasion du décès de ma mère. man dem naa këram à l'occasion du décès de sa sœur parce que seq nañ ko et puis voilà je connais toute sa famille <laughs> vraiment sans sans exception donc euh, c'est c'est des relations euh, tout à fait normales mais pas ay relations yi gars yi def complicité politique euh, non non non. donc yan genre fonctionnaire la ñu woon aux impôts Ousmane ak Diomaye. non ils étaient ils étaient compétents <laughs> ils étaient compétents ils faisaient leur travail même si. sur le plan syndical. Il, il fatiguait beaucoup le directeur général que j'étais. Mais bon, ça, c'est une vieille histoire, c'est du passé maintenant. Mm-hmm. Mm waaw ah, Georges. bon euh, monsieur le premier ministre yow euh, boo évaluer sa chance ñaata nga jox sa bopp euh, ñaata député nga jox sa bopp. ah man daal xam naa ne ñi bëgg jàmm ñëpp jàpp naa ne man lañ may woteel dinañ ma woteel te ñu bëgg jàmm ñu ëpp donc li may ñaan rek na élection yi tegu ci yow. waaw ah, Sénégal Sénégal yëpp bëgg jàmm donc ça yëpp ñoo lay woteel ah, man daal li nga xam ne bëgg naa ko moom mooy jàmm leneen li mu bëgg mooy njëriñ parce que jàmm day ànd ak njëriñ parce que boo amee jàmm te amoo njëriñ adduna bi day métti ci yow waaye boo amee njëriñ amoo jàmm it doo jëriñoo sa la nga yor kon li ñu fexe war a fexe mooy am jàmm am njëriñ derrière la concept de njëriñ li ma ci bëgg a wax c'est le travail mooy ñu fexe euh, nit ñi mën a liggéey mën a am dara am des règles très claires yoo xam ni dañu xam fii nga mën a jaar ba am liggéey Euh, fii nga mën a buñ wax nag nekkoon nga fi defoo ko déedéet réew dafay dox lu nekk da koy évaluer euh, xam ko mu dëppook jamono nga def ko waxtu ndax lépp du motandoo aussi bés bu nekk dafa looy def rek bu boo ci jàllee def leneen. boo nee na élection yi jaar si yoon est-ce que da ngay douter de la transparence ah du scrutin du dimanche. no non euh, je fais confiance man sama bopp à l'administration damay ñaan ñu continuer nañu defa doon def démb ak barki démb y a toujours des tentations du côté de de de d'essayer de manipuler surtout bu nekkee élection la boo xam ni ya y a des acteurs locaux qui sont impliqués c'est un sous-préfet par là c'est un préfet par là euh, voilà euh, euh, yooyu il faut que euh, administration bi gëm seen bopp xam ni qu'ils sont au service de la République et que que nga nekk opposition ou que nekk pouvoir c'est des Sénégalais qui sont en compétition et que le lendemain dafay jeex ñëpp ñëpp liggéey en tout cas jusqu'à présent maa ngi rafet rafetlu vraiment le comportement de l'administration c'est l'occasion pour moi de féliciter les services de sécurité parce que gis naa ni en tout cas man campagne bi ma def yëpp fi ma jaar yëpp ils étaient présents les agents de l'État notamment la police et la gendarmerie donc naturellement les préfets et gouverneurs sous-préfets yi nga xam ne ñoom lañuy traverser seen localité pour veiller à sécurité et je tiens à comportement boobu laa xam ci ñoom loolu laa yaakaar ci ñoom et loolu laa bëgg mu continuer ci Sénégal. Hmm. waaw ñu bàyyi la rek le mot de la fin. le mot de la fin mooy sant leen gërëm leen vraiment je reviens à Walfadjri parce que maa leen ko diggoon il y plusieurs années. donc euh, voilà daaw laa ko confirmé woon euh, ren laa ko def di ñaan yàlla Sénégal defal ñu jàmm. Sénégal yàlla def fi jubo Sénégal yàlla def fi euh, naataange campagne électorale fukki fan ñaar fukki fan la ak bu ñu paree am assemblée nationale boo xam ni moo war a représenté ci Sénégal yàlla nañu yàlla may en tout cas ñun sunu coalition ñu ëppale ci parce que li ñu bëgg mooy sénégalais yëpp juboo nekk un trait d'union entre euh, l' des enfants de ce pays. parce que bariwuñu li may wax kenn ëppul ci Sénégal à 18 millions 20 millions d' habitants kenn ëpp fi nañu fexe rek Sénégal nekk ci jàmm ak salaam. voilà ñu ngi lay gërëm bu baax. Adama euh, vraiment li mu wax rafetlu ma ko ñaawlu naa ko et c' est pas vrai du demul dëgg. demul bay nuroog dëgg la du la mu la may wax ak Macky Sall ci wàllu xaalis ak leneen moom du ko fekkee euh, walla boo dafa bëgg wax ni Macky Sall moo ko wax gëmuma ni Macky dina wax ak moom yu jëm ci ci ci ci ci ci yooyu. la euh, hier euh, d'ailleurs j'avais demandé à mes avocats de saisir la justice parce que ma yàkkamti ma boo ma waxee damay ne teg je veux même pas que ça soit lié ci campagne électoral bi. damay bàyyi ba élection bi passé ñu dem ci yoon c' était c' était ça mon plan moo tax démb laa waxoon euh, avo avocat yi démb ñu euh, préparé ma dossier bi bon il paraît que y a toute une procédure derrière effectivement ci ngoon gi son son son grand frère m'a appelé Iba Faye passe na ma aussi seen yaay bon je vais je vais voir un peu nan laay réévaluer situation. wala. je je verrai. sànq ñoom ñu loolu ñoom laa koy waxal mais dama la bëgg a wax li ci am c'est-à-dire que moo tax Sénégal booy wax da ngay xam li ngay wax seet li ngay wax. on a des relations très complexes. moi hier soir ci ci ci ngoon je me suis dit sax est-ce que Ibba li moo woowee xëy na dafa samay avocat la dégg ñuy wax yu mel noonu euh, euh, Ibba m'a appelé et m'a passé sa mère muy mag mu ma respecté mu ma warmal boo xam ni vraiment jàmm dox suñu diggante Ibba c'est vraiment aussi un ami. politiquement mi ngi ci li mu nekk man maa ngi ci li ma nekk ça ça n'a rien à voir avec des relations personnelles. fii la daal di Amadou Ba daal di yëkkati mu nekk ay kàddu yi nga xam ni moom saa su ne gis nañ taxawaay bi nga xam ni amee na ko ci politique waaye saa su ne gis nañ Amadou Ba mu nekk politicien bi nga xam ni daanaka bokk na ci ñi nga xam ni ñooy ci ñoom politique ginnaaw ba leen xamee ba léegi bëriwuñu coow benn yoon. waaye ci loolee mën nañ ne suba rek moo daal des li nga xam moo di élection législative anticipée yi am loolee nag daal di ne xamle bu baax élection bu jàllee mën nañu am. xam état bu Sénégal gi bu changé wul position dina am jafe-jafe bu baax a baax loole nag mu nekk ay actes yi nga xam ni moom Amadou nekk na ku yàgg ci état waaye tamit indi na gis-gis ak taxawaay bi nga xam ni noonu la ñu war daal di demal demalantee ca loole xam ni amewoon na ko ci ak ki nga xam moo di président Macky Sall nekkoon premier président ci numéro du Sénégal waaye moom Amadou Ba nekkoon premier ministre moom tamit Amadou Ba daal na ci indi ay xalaat bu leen di fàttee abonné aimé partager commentaire like ndax kat saa su nga xam ni lu ñu daal di jàppale la Buzz Actu 221